Abdou Sané kon nekk coordonnateur communal PASTEF Ziguinchor euh, nekk euh, itam environnementaliste ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM maa ngi lay maa Sané ñu tàmbalee waxtaan wi ak environnementaliste bi nga doon euh, nawet bi daanaka yegsi na euh, ñi nga xam ne ñooy waa ANACIM nag euh, daal woon def ay prévision yu wane woon ni taw bi dina teel a ñëw wante itam ndox mi dina bëri yow bi nga déggee yooyu les prévision yooyu la kon jàngat yow ban gis-gis nga ci amoon ak lan nga doon xaar. voilà donc jàngat bi ma ci am. mooy waa ANACIM yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci météo liggéey bu ñu def dafa nekk liggéey bu rafet parce que liggéey boobu boo gisee ñu koy def toujours c'est pour ñu permettre ki nga xam ne béykat la mu mun a xam at bi lan moo koy xaar bu fekkente ne planificateur urbain la mu mun a xam yan motuwaay la war a la war a jël pour mbënd mi bañ a am bu fekkente ne pour ñi nga xam ne aussi dañuy def ay navigation donc prévision boo gisee ñëpp di koy jàppale te ñu war ko jàppale dooleen ko parce que boo amee élément d'information moo lay permettre nga mun a préparer wu c'est pour la préparation pour nga mun a xam suba ban taxawaay nga war a taxaw par rapport ak li nga xam ne moom ñu def comme prévision hmm. alors ñun fii Sénégal am na ñu météo boo xam ne ñi ràññee ñoo fa nekk mais malheureusement dafa mel ni météo amul njëriñ fii ngay gis météo naan la ngelaw dafay am doole du hmm. tere ay pêcheur dem ci géej gi ñu dégg dee nañu fii ngay gis ñuy naan météo ne ren seen taw bi dafay teel a ñëw nguur gi ci teel a jóg ba mbënn mi ñëw di lor ay nit donc finalement dem na ba finalement on se demande si réellement am nañu volonté politique parce que bu fekkente ne am na outil de prévision outil de prévision finalité bi yëpp mooy lan pour nga mën a préparer nga mën ci teel a jóg malheureusement tel n'est pas le cas boo seetee li am nii ci ci Sénégal premier taw déjà ñu ne am na ko ci dee premier taw ñu ne lu mag juróomi téeméeri nit mbënn mi daf leen affecté finalement amul benn njëriñ parce que daaw loolu moo fi amoon daawat jéeg loolu moo fi amoon beneen affect at bi moo fi am bu fekkee ne léegi yow da nga nekk loo xam ne at bu nekk day am am day am franchement bu fekkee am nga ambition dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee sa xel mat na dëgg dëgg dëgg war nga taxaw nga seetal sa jumtukaay nga seetal sa alors gannaaw lii ANACIM yëgle lan nga jàpp ni moom la état bu senegal Sénégal moo war a def ngir xëy na ñu mucc ci euh, mbënd yi tàmbali am tey bañ a seen li fa xew barki démb ba dégg nañu ko ba am sax bakkan bu ci rot waaye ndox mi bari na lool ci nawet buy door ñu njort ne kon lii ñëw moo gën a bëri alors yow lan nga jàpp nii moom la ñu war a def ngir mucc ci jafe-jafe yi ñu daan am bu nawet agsi am na lu ñu war a def loo xam ne ba léegi ñoom nanguñu mais ba léegi nanguñu ko def. mooy la am na am na lu ñuy wax planification urbaine boobu dafa nekk obligatoire boo amulee planification urbaine te dëkk bi du mun a normal boo jëlee dëkk bu mel ni Ziguinchor depuis 1987 ba léegi benn planification amoo fi c'est-à-dire que waa urbanisme liggéeyuñu parce que planification moo lay permettre nga mën a aménager pour nga mën a préciser ci fan la war a dëkk yoon yi fan la war a jaar lan lañu war a def pour ndox mi ma bañ a taxaw léegi yow boo ko defulee mooy dégg tey ministre bi si suba si muy naan day dem Taïba Niassène pour seetaan plan directeur assainissement plan directeur assainissement mënoo ko def en dehors de la planification urbaine parce que dafa nekk une en cohérence hmm. donc tey pour nga mën a def plan directeur d'assainissement dafa fekk nga am un plan directeur d'urbanisme et un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme plus un plan d'urbanisme de détail ñett yooyu et dans le cadre d'une mise en cohérence nga mun ci tracer sa plan directeur assainissement madame yoroon naa ci office national de l' assainissement du Sénégal. Mm-hmm. mais jaaral foofu nga jël sama tur wala ñu dugal google nga def kuy am lu saa donc dañ may damay wax loo xam ne franchement donc sàggante moo am mais pourtant ñi ngi wax ne dañuy def curage caniveau yi avant nawet bi di ñëw loolu oh itam ñu ne lu am solo la wala. lu ñuy wax curage à niveau. Hmm. mooy les espaces assainis le Sénégal ça ne fait même pas 2 pour cent des espaces assainis boo jëlee Dakar bi ngay almadi yooyu yëpp ay kër rafet nga fa nekk mais almadi c'est pas des zones assainies que curage kii yi ngay wax noonu. Hmm. caniveau yi ñaata nit la ñu impacté moins de 3 pour cent de la population. boo jëlee les quartiers périphériques là fan moo am caniveau yow Pikine bu nii am na caniveau. Rufisque am nañu caniveau ñu mel avant boo jëlee benn les régions comme ay Diourbel wala fan ngay gisee caniveau donc le le peu de caniveau yi am du point de vue impact impact plus de 3 pour cent de la population nationale lu ñu am ci caniveau loolu yëpp lu ko waral c'est que bu ñu jëlee indépendance ba léegi bi tubaab yi demee ba léegi pratiquement ci la ñu am ay plan directeur d'urbanisme yu normal te yooyu boo ko réglé wul mënoo réglé quoi que ce soit lu nekk am na élément de base élément de base boobu moom la ñu réglé wul ñàkk réglé boobu moo indi ay nit dem dëkk fu ñu warul dëkk. boo déggee tey Taïba Niang seen maire lu mu wax c'est clair mu ne ci gars yi dëkk cuvette la ne ku nekk ci cuvette man la élève bu gën a ndaaree ci classe am boo ko nee maa ngi dëkk ci cuvette balaa taw sax di ñëw da lay naan yow day taw bu amee ndox dina la ci fekk parce que ndox ci kaw lay jógee dem ci suuf ndox gi du yéeg day wet mm-hmm. boo dëkkee ci cuvette mais loo bëgg mu fekk la fa ndox ca parce que loolu amul canalisation mais boo amoon ay canalisation xam ne ñoom ñooy drainer les eaux de pluie mu tane mais yow amoo canalisation ba pare nga dem dëkk foo warul dëkk mais bu tawee ko ndox bi dala fay fekk c'est la même chose le problème de Kaffrine hmm. Kaffrine dafa nekk aussi ci benn vallée ci benn dépression la nekk moo indi at bu nekk avant taw bi di am déjà man mun naa la wax ci dina tax alors bu fekkente ne yow balaa problème bi am mun na def tax envisager problème bi mais c'est parce que mooy problème bi bettu la te lu ñuy wax accident mooy lu la bett mais loo xam ne yow xam nga nii nii lay dem nii lay mujj nii lay manifesté wu y' a plus nekkatul événement. mais alors léegi le problème mooy lan. Hmm. problème mooy dañoo gouvernement boo xam ne ba léegi ñoom comprendre nañu ni boo nee da def approche conjoncturelle d' situation kii ngay gën a dépense xaalis te doo am résultat. par contre boo nee léegi da ngay def une réponse structurelle boobu mooy lan da ngay jël sa temps def liggéey boo xam ne boo ci génnee jeex na. mais malheureusement. pourtant am nañu plan plan plan décennal de lutte contre les inondations donte plan d'urgence bi euh, daanaka jàll na xëy na am na fu mu am ay njeexital mais plan décennal bi mën nañu jàpp ne mooy dina indi solution structurelle bi ngay wax ni solution boo xam ne bu bu yàgg lay. waaw yow plan plan décennal bi dafa nekkoon plan bu ambitieux. Hmm. boo xam ne ay banque mondiale ñoo ci taxaw. conseil présidentiel am ci man mi doon ak yow nekkoon naa ci rapporteur mais plan décennal du deux mille vingt deux bi Hmm. ana lan moo bougé ci diggante bi ana lan moo bougé ñoom ñu ngi xalaat sax renouveler waat et cetera mais bu beneen problème la parce que bu fekkee man dama la jox xaalis nga départ nga toog loo xam ne neexul ci man hmm. boo ñëwaatee pour laaj ma départ di nga wax lu leer donc c'est la même chose le gouvernement la c'est un gouvernement qui va se ridiculiser devant les partenaires techniques et financiers. waaw léegi lu mu wax lu mu wax amul. Ah. ma jox la benn exemple. Hmm. plan décennal dafa newoon il la lutte loolu ba léegi amul boobu bu fekkee ne yow li nga war a def defoo ko mais lu la ci fekk ci yow la comme c'est une question de bon sens c'est-à-dire qu'il y a l'absence de volonté et il même un problème de carence notoire jeex na ñoom lu ñuy réfugié mooy lan ndogal yàlla la et cetera et cetera am na Japon am na li bokkul. y a une typologie d'inondation. laa doon bëgg a sax euh, ak yow parce que tamit dañuy dégg ñuy wax ne euh, lu am fépp la te loolu aussi boo xoolee da koy gis fu mel ni Brésil par exemple njeextalu ay bés bi luy toll ak juróom-benn fukki bakkan rot na euh, lu ko jege en tout cas ndax taw yu bëri ak ndox mu bëri ñu mun ko jàppee aussi mën na suy xew tamit ñu ne ñu coppite yam ci wàllu jaww ji moo ko waral tam xel da koy xaw a nangu est-ce que mën nañ ci dara finalement. mën nañu lu gars yi di wax toute comparaison n'est pas raison. Hmm. xam nga ñun suñu inondation xam nga inondation dafa am typologie inondation dafa nekk typologie ensuite beneen précision de taille inondation du catastrophe dafa nekk aléa aléa mooy lan mooy loo xam ne mun na nekk mun na indi accident mais comme mun na am ay aspect positif bon donc inondation yu am fii Sénégal nañu yem Sénégal yi am fii Sénégal hmm. la cause est identifiée te boo laajoon ministre boo laaj président boo laaj daf lay naan lan la absence de planification urbaine koo laaj au monde da lay pour Sénégal comme Sénégal moo ñu tax a jóg inondation dafa am parce que déficit planification urbaine amul leneen lu ñu la mën a wax parce que am na loo xam ne bu ñu ko defoon ci après pourquoi léegi ministre bi daw dem Taïba ñaar muy naan oui nous allons faire un plan directeur d' assainissement la canalisation donc cest à xam na ni am na loo xam ne bu ñu ko defoon lii yëpp du doon am mais loo xam ne dafa la échappé totalement doo am sax solution pour ça est ce que devant la mort on a une solution non loolu loolu mooy loo xam ne ndogal yàlla la parce que on ne peut pas lutter contre la mort ku ku juddu préparé wu ne pour de mais ku dem ba ne léegi pour inondation bañ a am Touba wala bañ a am Diourbel wala mu bañ am Ziguinchor lii lii laay def cest à que xam na solution bi xam na cause bi léegi ñun nanguñu régler problème bi en agissant sur les causes structurelles mais dañuy régler toujours sur ce qui est en loolu moo indi affaire yëpp di tardé xaalis bu bëri aussi ci dem te na ñu bëri aussi ci li ñuy am xaalis parce que tey inondation bu amee au nom de l'urgence amul appel d'offre marché donc da ngay def ay entente tacite deal bi yëpp commencé ko ku bëgg a lekk xaalis lekk comme ci Sénégal léegi kenn gorewul bon ñi gorewul sax bëriwuñu voilà am ñu kersa ci xaalis loolu la donc ñu bëri tey deal boobu la ñuy deal ci lan ci gil ci ci bakkan ay nit donc y a déjà un mort mais Sénégal aussi on a banalisé la mort ba nga xam ne at bu nekk y a plus de un mort pour les inondations kese wax ma nag ay enfants yi di lakk la di lab ou ñoo xam ne la foudre mooy lu ma leen koy wax ci wala fan. dënnu mooy ban mm. ah. dënnu yi. ah yi dënnu. voilà donc euh, boobu aussi mi ngi ni dina indi. Mm-hmm. boo jëlee la foudre l'aléa c'est il est naturel. mais la réponse am na avec les paratonnerres loolu moo indi tey palais présidentiel benn foudre du fa daanu parce que am na paratonnerre bu baax boo xam ne am na entretien mais boo demee dans les régions de Diourbel de Ziguinchor tout là am na amoon na ay paratonnerres mm-hmm. mais kenn entretenir leen dafa nekk loo xam ne da nga koy installer ba pare nga koy mais kenn entretenir ko suba ku ci dee rek ñu naan ndogal yàlla la. Ah. alors que y' a bi ñu génn ñaari bakkan ñaari bakkan rot na. Euh, gannaaw taw yu amoon ñu ñu jeexal. très rapidement mais on a banalisé la mort fii dañu banalisé la mort ba nga xam ne dara dara ci fekk c'est-à-dire que même quand il y a mort d'homme hmm. information judiciaire au départ ci émotion ñëppay jóg ñëppay yuuxu mais après dañuy tourner page bi. ñaari fan ñu fàtte ko. aywa eh, eh, ñu wax léegi nag ci wàllu politique jeexal euh, waxtu bi mu ngi ñuy dàpp euh, ca Ziguinchor ga ngeen nekk euh, yow yaay coordonnateur communal bu PASTEF seen investiture yi yëngaloon lool coalition yi Yewwi naka noona yéen foofa Ziguinchor naka ngeen dundee mbir mi yëngal na leen wala yéen moom amoon ngeen déggoo ci seen biir wax ma Ziguinchor mais amul fenn foo xam ne investiture yëngal na ay nit parce que ñun dañu nekk ay militants yu mat. ñi ñu dégg ñuy ñuy ñuy ñaawlu nag ba xëy na kenn sax tekki ndomba tànkam si commission communication bi ci giraas yi. muy ay jigéen yu mat muy mm. ay góor yu mat dañu am lu ñuy wax le sens de la responsabilité te ñun suñu ambition tey nga xam ne moo tax ñu jóg nag ci ginnaaw Ousmane Sonko dépassé na être candidat à une députation wala à une élection locale suñu ambition mooy lan na projet bi mun a ñëw parce que projet bi bu ñëwee pour ñëpp la. ñun suñu taxawaay bi foofu la nag loolu moo indi amul fenn amul benn rajo amul benn réseau social boo xam ne di nga dégg lu métti wala lu yëngal yeewi askan wi à Ziguinchor à Oussouye à Bignona à Dakar. waaye au plan national nag yëngu na nag au plan national moom yëngu na. du yëngul li ngay wax ni yëngu. Hmm. non non parce que doolee moo toll foo xam ne ku sax tax day yëngal gaal. d'accord parce que boo amee yeneen doole yi geste bu ndaw boo def tax day mel ni. qui est violent te doole bi moo am doon. Mhm. moo moo ëpp. waaw Ziguinchor nag lan mooy seen secret. pour wax pour wax seen xalaat ah. ay nit ñëw jóg pour wax seen xalaat te ñoom bu ñuy paree ci seen ci seen wax dañu toog ne tey lañu gën a taxaw pour xeex pour promouvoir projet bi. donc loolu mooy la finalité donc ñun ñëpp comprendre nañu ni amul benn investiture bu war a tax nit jóg pour caali mais ñëpp war nañu comprendre ni investiture bu ñu def nii. c'est pas une finalité la finalité mooy outil boo xam ne mën nañu permettre ñu mën a atteindre réaliser suñu projet. waaw lu tax ñu dégg ñu ñu ñu bëri te dégguñu waa Ziguinchor luy seen secret. ah waa Ziguinchor waaw. dañu nekk ay nit yu mat may respect seen leader di koy déglu bu baax ba pare ñu ngi jàng programme moom jege ko ba le fait ñu comprendre fu mu ñu bëggee yóbbu Sénégal boo ëpp solo ko ñoom seen intérêt personnel loolu moo indi fii ñun ñëpp. on est comme des frères jumeaux comme des frères uniques. Mhm. donc loolu moo indi Ziguinchor nekk référence Bignona nekk référence Oussouye nekk référence Dakar Thiès nekk référence Sénégal ak diaspora yëpp nekk référence. waaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko. aha Ousmane Sonko moomu am na lu mu sumboon muy soppi turu yenn euh, koñ yi waaye préfet songu na boobu dogal euh, ci kanamu yoon euh, politique ngeen ko jàppe wala yoon wu normal wi rek la yëf yi aw. le propre des médiocres nanguñu gis koo xam ne il est brillant bu décollé Ousmane dafa ñëw mu innové boobu innovation dafa secouer la république premièrement mooy lan indépendance boobu amee ba léegi benn candidat musul jóg am programme boo xam ne daf ko concevoir élaborer ko partager ko avec le public Ousmane def na ko ci biir mise en œuvre bi ñëpp gis ni à partir de la collectivité locale qui la mairie de Ziguinchor Ousmane va décoller léegi ñaan boobu la ñu am pour nga parce que Ousmane mu mën a réussir à partir du collectivité territoriale léegi kenn ku nekk yaa ngi seet noo ci mën a jóg pour luy neex président Macky Sall comme ça nga mën a am avancement Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi képp ku bëgg a am avancement ñu leen na nga saaga Ousmane Sonko na nga ko attaqué wala na ko weddi noonu la préfet Dakar defee lu ñuy wax dal te mi ngi ni gouverneur Saint-Louis suñu préfet bi fii tam pour ne que Macky Sall passé ko moom ne xaaral comme Macky Sall léegi euh, comme Ousmane Sonko léegi bien sûr man lépp lu mu def dam koy compte dem na ba mu ne tour bu ñu tuddee des lieux moom d' accord ci dem na ba mu ne ñun ñu defee un chargé aux affaires religieuses mu ne on est dans un pays laïque moom d' accord ci donc du mos a d' accord ci lu Ousmane di def ñu am une session au lieu mu ñëw fekkee session bi mu créé benn alibi ne moom lay dem aéroport accueillir euh, un ministre accueillir ministre ban intérêt la amal pour population mais loolu yëpp lan la mooy le zèle parce que ñëpp pour ñoom gëm yàlla tax na ba. xalaat nañu ni pour moom na avancer ci da ngay def loo xam ne mooy neex Macky Sall te luy neex Macky Sall mooy lan nga wax lu bon ci Ousmane Sonko nga attaqué Ousmane Sonko. jërëjëf malheureusement loolu mauvais calcul la. jërëjëf Abdou Sané coordonnateur communal Pastef Ziguinchor nekk itam environnementaliste amoon nañu mbégte dalal la ci matinaa Rewmi FM tey. merci